am solo lool ma kontaan masar waa yëpp rawatina waa Kër Massar Sud. nga xam ne liggéey bi macha allah rafet na ba tax ñu am résultat yi ñu am su loolu amee na ñun mënuñoo def parce que comme ay liggéeykat lañu liggéey lañu gëm te ku xam maam Gana Kebe xam ko ci liggéey lu weesu 25 ans fii ci Kër Massar. kenn mësuma gis may taxawaal foo mu fekk maa ngi liggéey maa ngi bricolé liñ ci jël dañu dante na bi ñu ko doon séddoo ak waa Kër Massar xëy na loolu lañ dem ba wax social mais loolu doyul nga nag liggéey boo koy liggéey ba gis koo xam ne wax dëgg yàlla mën nga ànd ak moom ci liggéey da ngay taxaw xool kan nga war a ànd ak ci liggéey dégg naa sëriñ bu mag bi di sëriñ Cheikh di wax weddi dafa yomb mais jëf moo jafe xam Gana Kebe moom jëfkat la moom dafay xool ñan ñooy jëfkat yi mu fas yéene ànd ak ñoom. jëf nag du ay wax mais xam nga ku wër Sénégal ba mu daj dëkk boo dem lu mu gën a sori yaa ngi fa gis tari ak ndox te loolu mooy naatal réew. rawatina ñu ñëw suñu kër Massar bi nga xam ne moo tax maam Gana Kebe sumeeku nekk soldaaru Massar waay yëpp bi ñu nekkee soldaaru Massar waay dañ cee boole nekk avocat wu Massar waay tey jii. maam Gana tey jii bu tawee ba nit ñi di ko dekk micro xëy na défendre waa Kër Massar rawatina waa Kër Massar surtout loolu nag moo waral daje bi comme ñun gis nañu ñu ngi doon dimbalante ak nit ñi di jàppalante ak ñi ak suñu as néew suñu amoon ah bu ñu demee ba gis ab liggéeykat nag dañuy taxaw fas yéene ànd ak moom ci liggéeyu Kër Massar d'abord muy le président de la république dañoo fas yéene ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar pour am dem liggéey. di wax rek ne comme nit ñi dañoo fassé yéene ànd ak kat yi and ak ceeb wa mouvement fajj mbébétu askan bi nga xamné ay jambar lañ né nak ma gànna lo wax lool lañ wax parce que mosoo dox sa intérêt bop bopp wax say waxi bop ma am ci yaakar bu baax yaakar bi mënul weesu lu ñun suñu député yi nga xamné moy madame Assome ak Cheikh bakay ñay ministre Ox nga xam ne wax dëgg yàlla boobu ba tey lu boole Massar waaye lu boole département wu Kër Massar ci lay dox ci lay wax ci lay def. ah wax dëgg yàlla dama ni dafa jot parce que tey jii ku gis Mame Gana Kébé ku gis Mame Gana Kébé mosoo ko dégg ci politique man li ma doon politique mooy nu ñu def ba defar suñu Kër Massar bii te Kër Massar ku fi dugg. xool ñaa ngi defar tali bi ñoo ci inondation yi loolu nag boo ko gisee nga nekk ab liggéeykat doo mën a ànd ak ku dul liggéeykat bi dama ni man Mame Gana Kébé à partir d'aujourd'hui fas yéene ànd ak waa coalition benn Bokk Yaakaar liggéey liggéey bi te yaakaar naa ne su ma ko waxee fii laa ko war waxee su ma ko waxee waa Massar waaye waa Kër Massar dinañ ci ànd ak man parce que xam nañ ni man lu may wax wala lu may def moo njariñu Kër Massar ñaanal nag képp ku bëgg Mame Gana Kébé muy samay njaboot muy Kër Massar Sud Kër Massar Nord yëmbal jaxaay dama ni à partir d'aujourd'hui Gana moo ngi sur le terrain ku xëy na ma fekk fa nga a fekk ñu loolu loolu dafa leer te balaa cee xam dara ñu wàcc suba sur le terrain ba fas yéene yëngal waa population yi yaakaar leen ci nag yéen ñëpp te di ñaan bu soobee yàlla ñu wàcc sur le terrain parce que ñu fal suñu député yi fal bu leer nañ te dañ koy def bu soobee yàlla dañuy gagné élection yi. maa ngi sant nag sama délégué yi sama commandant de guerre yi foo mu sa nekk rek ñëw nga fa maa ngi leen di sant bu baax mënu ma ko def nag. te boolu ma sama président ak présidente de Céline yi nga xam ne. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen di sant président Céline yëpp. di sant fédération des mouvements ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo bàyyi yitte yi ak soxla yi bàyyi bëgg-bëgg yi. ndax sama jëmm ji di maam Gana Kébé di sant waa Kër Massar yëpp nag. ngi sant waa Kër Massar yëpp parce que fi ngeen ma def dafa leer xam naa ko ah di wax rek ni comme man ngeen woolu man ñii woolu ñii nag pour ngeen dimbalee ñu mooy le 31 ah suñu deux kilomètres yi ba ba tey yéen dama koy wax Alaaji Paate mais ñi ma daal. li daal laa bëgg suuf si 31 juillet ah ngeen dugal ko fi ngeen ko war a dugal ndax Benno gañe ndax suñu Kër Massar bi ah liñ ci bëgg ñu am ko gis ngeen ni tey ni mu demee xam nañ ni tey jafe-jafe yu bari moo tax saal waxuma la saa bi moo tax Kër Massar feesu mais xam naa seen yéene ci man. sama yéene ci yéen moo ñu defar Kër Massar ñii nag wax dëgg yàlla ñu am nañ ci ñoom yaakaar te yaakaar nañ dinañ ànd ak ñun ñu liggéey Kër Massar parce que ñoom lañ bokkal département wu Kër Massar. jërëjëf waaw mais jërëjëf parce que gis naa ne rek wax dëgg yàlla toggaay bi yàgg na parce que am na ñoo xam ne depuis midi ñoo ngi toog fii di xaar président Mame Gana Kébé kon ñun mu ñu def lu dul sant leen gërëm leen bi sant tamit journaliste yi. wax dëgg yàlla di leen sant bu baax di leen gërëm di am kontaan te bu mag a mag a mag a mag di jox nag ko walaay ak communicateurs yi walaay ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi walaay cofeel la rek rendez-vous ci terrain bi ci liggéey bi di sant ñëpp nag koo xam ne rek def nga fi dérangement def fi déplacement jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci beaucoup